moo amoon fi loo xam ne nii nag tey mooy la remise des drapeaux aux élèves euh, gendarmes il y a c'était la dixième promotion des élèves gradés ainsi que la 51 des élèves euh, gendarmes ba tax na ci kaw loolu maître Sidiki Kaba ministre des forces armées a pris parole ñëw na wax ak élèves yi fàttali leen li nga devoir bi nga xamante moo leen xaar buñ génnee ci école bi mu ànd ak discipline ànd ak yar waaye tamit dégg ngeen colonel bi nga xamante ne mooy commandant de l' des sous-officiers de la gendarmerie nationale muy le colonel Cheikh Diouf jël na kàddu La remise des diplômes de la dixième promotion des gradés et de la 51e promotion des élèves gendarmes. Je voudrais féliciter le commandant de l'armée, le commandant de l'école et en même temps tout l'encadrement eh, qui a pu aboutir à une formation de qualité. Cette formation répond à une volonté politique du président de la République Macky chef suprême des armées, qui voudrait que notre armée puisse avoir les hommes et des femmes formés en capacité de répondre aux défis et aux menaces euh, qui aujourd'hui sont présents. Je voudrais aussi magnifier l'engagement qui a pu donc euh, nous permettre aujourd'hui d'avoir un nombre important de gendarmes qui vont ainsi renforcer l'existant et ainsi apporter les solutions au euh, aux nombreux défis de sécurité que les populations connaissent à travers euh, notre pays. Par ailleurs, je félicite vivement les élèves qui vont donc rentrer dans leur carrière, une carrière où ils auront aussi de nombreux défis, défis qui doivent leur permettre de pouvoir mettre en œuvre l'enseignement qu'ils ont reçu, l'enseignement d'excellence dans cette école. di di leen wax ni tey ci tuuru président de la République Macky Sall et chef suprême des armées ak euh, tey jii ñëw nañ fii ci Fatick fekk si madame le gouverneur et en compagnie de du haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire, le général de division Jean-Baptiste euh, tin di présider cérémonie bi nga xam ne mooy cérémonie la dixième promotion dégradée ak euh, cinquante et unième promotion des élèves gendarmes ñu ngi féliciter le commandant de l'école ci liggéey bu rafet bi mu def moom mi ak encadrement bi di di leen tamit président de la république engagement bi mu jël engagement bu am solo la engagement bu rëy la pour que suñu force de défense et de sécurité ñu am ay formation formation bi nga xam ne dina tax mën nañu euh, faire face ci défi yi nga xam ne xam nañ ko di préciser tamit que ci euh, euh, élèves yi am nañu tamit vingt cinq sapeurs pompiers loolu yëpp li ma ci bëgg wax mooy di professeurs yi ak encadrement bi lu ñu def seen liggéey bu rafet bi maa ngi koy rafetlu di félicité population yi tamit parce que ñëw nañu fii en masse mu nekk euh, fête populaire di féliciter di euh, di féliciter madame le gouverneur les autorités administratives les autorités religieuses ñi nga xam ne ñëw nañu fii ci ci camp bi ci caserne bi pour participer ci cérémonie bi